ci ànd jëf politique bi xëy ak i mu yéene waa parti Pastef ba woon ñoo ci ëppale ubbi l'observateur la doon wax ñoom waa Pastef mu di bu garab yi doon fàq suuf jalaa ñoo dutee Ousmane Sonko bokk ci wotey seen discours boobee l'observateur ne nañu soppeeku na li ñuy wax léegi mooy Pastef dina am candidat ci élection présidentielle 2024 ndax loolee dana mën a nekk bu dee nekk nu muy nekkee ndax ñi ko bëgg nekkal danañ ca mën a nekk ba noppi boole analyste politique bi di Babacar Dione ak professeur Moussa Diaw di kuy gëstu ko jàngale wàllu science politique ca université Gaston Berger ba ca Ndar ginnaaw bi ñu tasee parti Pastef fanweeri fan ak benn ci weeru sulet gi ñu génn borom parti bi di Ousmane Sonko nekk ca kaso ba Babacar Dione gis na ne ñoom waa Pastef defaruwaat du leen yomb rawatina ci jamono ji nga xam ne juróom-benn weer kot moo sulet gi ñu génn borom parti bi di Ousmane Sonko nekk ca kaso ba Babacar Dione gis na ne ñoom waa Pastef defaruwaat yomb rawatina ci jamono ji nga xam ne juróom-benn weer kot moo dox suñu digganteek élection présidentielle yi journal bés nañu waxi plan B ngi gën di xeeñ nañ ci biir parti Pastef b comme Biram Souleye Diop wala b comme Bassirou Diomaye Faye Walf Quotidien di laaj ñi nga xam ne ñoo daroon Ousmane Sonko kan ci ñoom mooy favori maanaam kan moo gën a jekku ngir taxaw taxawaayu wuutu Ousmane Sonko anki dina kay nañu est-ce que duñu gis guerre des lieutenants ci seen biir le téemo ñu waa Pastef ñoom waxaguñu waxi plan B ndax ñoo ngi waajal ab coalition bu ñu naan coalition Sonko nee nañu bu ñu màggalee ba ñëw ca lañ koy lancé démb ci ñoom juróom-ñaari ñu mandat dépôt ci ñoom ñaari président jeunesse patriotique du Sénégal ci la bokk muy Bossam Notaire bi ak Yacine Diagne bu Grand Dakar élection présidentielle 2024 yéen a kaay bii di point actu mi ngi ñuy wax ne fa coow li nar a nekk moo di ci coalition yi ndax jamono ji bari ay appareil politique yu amatul doole Idrissa Seck moom ci fi mu toll moo di nu mu mën a jaajo waatee ngir am doole ca jamono joojee waa taxaw di waa mooy jàmmarloo gi ñu war a ñett yi toppee Karim Wade moom Karim Wade le témoigné nee nañu bu bokkul ci élection présidentielle yi 2024 yi bu mu ko meree kenn ku dul bàyyam Abdoulaye Wade ndax ci constitution bu 7 janvier 2001 bi moom lay Wade moo ci dugaloon article bi wax ni képp ku doonul ab sénégalais entièrement doo mën jiite Sénégal te doomam ji Karim Wade mi ngi ñaari nationalité nationalité guéño muy Sénégal ak nationalité meen muy France Alliance pour la République di APR ci tas la jëm journal Tribune moo ko après loolu nañu dem ci libération Juan Branco ay mbiram coow li pënd bi wureegul ndax ñi ci tudd mu di maire bu Parcelles Assainies Jamil Sané di njooguloo jege ñaaleb maire bu Sangalkam di Mamadou Diop contrôleur des impôts ba ci mbër mii ñu naan usine doole libération nee nañu bu deuxième cabinet gàll na leen démb tuumay association malfaiteur tuumay turbale ordre public bi ak tuumay fat wéyu mu di recel malfaiteur contrôleur des impôts bi di Mamadou Diop moom jii di Jamil Sané maire Parcelles Assainies ndax bu weesoo mandat dépôt gi ñu ko defoon duuraat nañu ko démb beneen mandat dépôt ci coowal Juan Branco li maire beneen bu newoon ci loxo yoon te ñu génne ko démb Vox Populi nee nañu mooy Maimouna Dièye maire bu Patte d'Oie wér gi yaramam gu doy waar moom Maimouna Dièye yéenekaay bi nee nañu moo waral ñu bàyyi ko démb mu dellu njéyeen waaye nag ci contrôle judiciaire ca la nekk démb la ko am li am ci banque yi ci réew mi doy na waar direct news nañu ci banque yi ci réew mi am na ci ay chef d'agence yoo xam ne dañuy jël seeni agent yu jigéen di leen màkkaro ak ay clients yu am alal direct news mi ñu ko wax wax nañu ñu it ne am na benn xale bu jigéen buy liggéey ci benn banque bu nekk ci réew mi bu wax ne moom xale bu jigéen bi ni ko yàlla bindee ci jekk tax na bu nit ñi baree ci banque bi gestionnaire banque bi da ko naan na jóg daago doxantu jaayu ci kanamu client yi DSL ak seen marque bii di